سفر بمزة جنة سفر بمزة جنة سفر السلام عليكم سيدي ساليو تاي دانيو نيون بوغونا خام رك سين واتاي ماغال جي باكاي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدم وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي توبا خسيدة ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di am mbégte lool ci daje giñ ñu daje yéen ak laaj bi nga xam ne moo laaj ci fii ñu daje te ak lan moo ko war fu ñu jëm. muy mel ne ki bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moo ñu tax a mucc tey ak ëllëg muy bis bu Seexuna Ahmadul Xadim muy xaratu yow ma sabti samin asar boobu loolu moo tax tey jii ñu fas yéene rek wéy ndigal Sëñ Tuubaa jooju muy fas yéene ko santale yàlla ci bisam bi nga xam ne ci la waxoon ne génn gim génn day suñ borom moo namoon ci moom daraja ju rëy ak bëggit mu mu mu mu mu xettali aw xeetam waaye mu nekk koo xam ne day liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi kon dafay mel ne kon coono yi mu daj ak génn googu day mel ne ñun sunu texe moo tax mu def ko kon nag su ñëwee yitte juñ am ak luñ mën di jàpp rek war nañ ko mën a bàyyi dem wuyu ji bis boobu kon moo waral tey jii ñu taxaw fii incha allah. noo li ñuy wax phénomène bu bees boo xamante ni mu dañ ko tàmbali léegi muy safar gi bu tàmbalee rek ñu tàmbali doxalin wu bees bokkul ak bañ daan am noo jàngat loolu euh, waaw li ko waral mooy ñu bari dafa mel na safar dañ koo xamut hmm. ndax sëriñ bi li daj ci coona waaye sëriñ bi fi mu jaar ngir suñu xetliku hmm. jàpp naa ne bu ñëwoon ñëpp war nañoo delluwaat ci jaar-jaari sëriñ bi hmm. ndax bu ñu seetloo biñ ko yóbboo fi nga xam ne mooy Gabon mu def fa juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer yoo xam ne tumuranke ga fokk takk weesu na ko nga xam ne barab ba fañ ko njëkk a bàyyi bàyyi nañ juróomi at yoo xamante ne bii dañ ko bàyyi ci benn barab boo xam ne ay ab àll rek la ay ndeñ mbent nekk fa ay rab nekk fa te climat ba fa nekkoon defoon na ne kenn du mën a dund te lañ ci jubloo mooy jël bakkanam waaye mu nekk fa di wéetal boromam di jaamu yàlla ngir lan ngir mu ramuñu tey ji kon ba mu demee ba delsi taxul coono yi jeex mu wëlbatikuwaat demaat gànnaar. Mm-hmm. jóge fi dem Ceyeen. Mm-hmm. loolu lépp ngir ñun ñii ñu xetu ko ëllëg tey eh, a tax. Mm-hmm. kon bis bi ñëwee. war nañ ko jël ci geneen anam. mooy anam gi mooy lan mooy ñëpp ñu delluwaat suñu borom subhaanahu wa taala xam ne ay jaamu yàlla lañ. te sëriñ bi mu fi ñëwee ba ni mu fi ràqoo musta dañ ci lu ci boromam ci la nekkoon guddi ak bëccëg di jaamu boromam subhaanahu wa taala lim daan digle mooy jaamu yàlla kon ñun ñëpp bu ñëwee ñun kenn ku nekk mm. li ma def mooy delluwaat ci boromam mm. te njukkal sëriñ bi mm. ci lan ci góorgóorlu ba doon bu ëllëgee bu gisee sëriñ Touba dana mën a sigi ci kanamam jaamu yàlla goo xamante ne bi day jaar fa sëriñ bi bëggoon loolu mooy li ñu war fi ñu toll lu ñu amit ñu sant ci yàlla santale ko sëriñ Touba waaye duñ ko def feneen boo xam ne nga xam ne ma ne pomme ci dugg ak wàllu àdduna ci dugg mm. loolu de wuute naag la sëriñ bi woote woon mm. ndax cant gi day cant gi dañoo jàpp ne eh, lekk ak naan la mm. waaye déedéet dafa bokk ci li suñ borom gën a bëgg wammaa bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla joxee xéwal da nga ko war a sant xéwal gi suñ borom jox suñ borom nag xéwal gi mu jox gi mu jox sëriñ Tuubaa moom la sëriñ bi woote nañ ko ci santal yàlla te dañuy wax ne ki nga xam ne dafa am ba pare. di sant. moo ëpp maqaama fuuf ki ñàkk di sant. ndax dafa gën a jafe. waaw ngay am lu baax. ñuy laaj ba tey nu ñuy màggale ak euh, màggal si ak nu ñuy màggale. <laughs> ok laaj nga laaj ba mu solo xam nga nit ñi dañuy jaawale màggal ak màggal si day ñaari mbir yoo xam ne rek dafa day nuru ñaar tey leen na. Hmm. màggal ak màggal si. xam nga boo xoolee sëriñ bi dafa waxoon ne. képp koo xam ne sama mbég sa mbéga. su bis bi dikkee na ma ci santal yàlla. bi ko sëriñ bi tàmbalee sëriñ bi mi ko njëkk tàmbalee def dañuy wax ne 1921. ci la ko njëkk daan def. waaye bi mu koy def fësalu ko woon. bu bis bi ñëwee rek dana wut ay berndeem. kafeem ay ndawal daal di jël séddale ko joxe ko. waxul kenn dara. di ko def di ko def ba ci ba ci 1924. ci lenn ci rewaay donte am nay wuute ci at yi. waaye ci la woote woon. sëñ Balla Fally Dieng ak mag ña fa nekkoon. na leen da ngeen daan wax bis boo xam ne da ngeen am bëgg bis boo xam ne da ngeen ma ciy màggal. booba am ma ci ndigal waaye am naa ci ndigal bis rek tey. ci bis bi muy 18 safar su bis bi dikkatee. koo xam ne sama mbëgg sa mbëgg nag ma nag ma nag ma ci santal yàlla mm. mag ñi na tàmbali di ko def noonu mm. nga xam ne booba waxul ne Tuubaa lañ ko defee mm. waxul nañ njaareem fu waay nekk rek la waxoon nañ ko fa def su ma saa ñëw ne booba ci réew mi ñee nga ca Saalum ñee nga Kajoor ñee nga Bawal ñee nga Ñaambur waaye su ñëwee rek kenn ku nekk da nga koy def fa nga ko daan def ñii rey ganaar ñii rey xar ama demoon na sax ba ñeen mag ñi dañoo mujjoon ñi néew doole di téye seen tabaski ngir ne mbégum sëñ bi moom moo leen gën a lu ne eh, ba mujj ñoo nañu dañuy bàyyi tabaski waaye sëñ bi mu ko yëgalee di leen woo na leen nag bu leen ko defee day nuru bidaa te tabaski Seydina Ibrahima sunna Seydina Ibrahim la kon nag lii bokkul loolu sunna la soo xam ne sunu maam Ibrahima la ko yàlla jagleel kon dee leen tabaski. bu bis bi ñëwee ngeen santale ma. Mm-hmm. mag ñi nag ñenn ñi nag doog a nag bëgg a daa def ñaar yëpp nekk waaye dañoo mujjoon sa bëgg a jëm te bu ko defee woon kon benn la ñu daa def. Mm-hmm. ndax dañoo wax ne dafa la li liñ ci banaam mënuñu ko ci bële. ndax bële sunal waaye bii moom mbégum sëñ Tuubaa la. Mm-hmm. moom lañ ko fayee. bi loolu amee nag mu nekk ca loola ba jamono ji nga xam ne Cheikh Mamadou a sëñ bi jógee na fii Cheikh Mamadou Moustapha nekk fi wéyee ko noona foo ay nekk di ko ba Cheikh Mamadou Fadil ñëw nag bi Cheikh Mouhamadou Moustapha làqu ba ci déwén sa hmm. Cheikh Mouhamadou Fadil bi toogee nag hmm. ci la wax ne nañu nañu màggal si Touba nañu ko indi bi Touba kon na ñëpp ñëw hmm. loolu lam si jublu woon na it mooy ñaari mbir da ci mooy day dajale taalibe yi waaye lan la ci def mooy daf leen di delloo ci Serigne Touba ñu bañ a comme li ma wax li ñuy li ñuy dal nii bañ a dem ba dugg ci lu ci bokkut bu ñëwee mu discours def benn discours def benn benn benn waxtaan jajj ci taalibe yi waaye ñi nga xam ne it mooy jumaa ji mu soñee ca ñu indi addee ji bu ko fee ñu bernde xamante ziarante ba déwér ñu dellusiwaat noonu lañu daan def waaye Cheikh Mouhamadou Fadel daan na léegi dañ koy defee seeta fii Touba nag ñëpp du ñu def fa defee nag waaye ci biir def ko nag fi nit ñi jaawale mooy bu may dem kii màggal ca fa mu ko war defee këram la ko war defee waaye suy màggal si na dafa war a ëndaale li muy màggale foofee ca biir Touba loolu mooy mooy différence bi ndax yow bu fekkee da ngaa ñëw te andi woo la nga la nga màggale day mel na yow da ngaa màggal si waaye màggaloo ah, léegi de kon da ngaa war a màggal si ah. man la ma war naa def ci sama kër hmm. su may ñëw dama koy indi def ko ci Sëriñ Tuubaa santale ko santale yàlla sunu hmm. waaye su boobaa boo ko deful yow kon day mel ne kon ñi fi nekk ñoom ñooy ñooy santale Sëriñ Tuubaa yàlla hmm. waaye yow kon yow da ngaa ñëw yóbbaale rek kon yow kon ni ngay def mooy yow mi nga xam ne yaa dëkk faneen am nga sab kilo suukar andil am nga sa ganaar andil hmm. am nga sam xar andil hmm. sa firi andil bu xeeb dara hmm. ngir lan bisimilah waaw barke maam Cheikh Fall Lamp murit bu mag ba euh, moom day xam naa bin sante te gërëm lii nga xamante ne bii yàlla suñ borom moo ñu ko baaxee muy maam borom Tuubaa Xaadimu yaakaari jaam yi nga xam ne kenn du moom boo gisee bisam bii nga xamante ni fu nekk la doomu aadama du jóge di ko teewe ci dëkkam bu sell bu le moo lay firndeel ne am na lu tax la tax nag moom a ah, moom mooy ndogalub yàlla ci jëmmam joojee ndax daa jaamu yàlla ba yàlla defal ko lu mu defalul kenn kon nag ñun ñëpp nañ bokkaat rek sant yàlla bu baax a baax te wàkkeelu bu baax te doyloo te ko gëmloo ko nag ndax kat lii mu ñuy def loo danoo bëggal lu baax bëggal ñu jàmm tey ak ëllëg bëggal ñu suñu taw tawféex yu yaatu yoo xamante ni bii danañ ci mën a def li nga xamante ni moo gën ci ñun. Mhm. te moom defal nañ ko ba noppi. Mhm. ndax ba mu ne dama ci sant yàlla di sant lu yàlla. Mhm. booba wax lépp. kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo ci des bëgg lu baax. te yaakaar ko ci moom. nan ko sant la yàlla borom bi. ba lim ci digge ñu am ko wante mooy lim ci digg la ku ko ko defal na mu ko bëggee. ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi siyaare ñëpp di jiital ci siyaare bi alxalifatul am ñu taifatul muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir ayadahu allahu wa raahu yal na yàlla guddal fanam te sàmm ko réaction ci màggal gi daal mooy mbégte mbégte mbég rek ndax mbég mi nga xam daal moom la sëñ bi bëggoon lim ñu diyoon ci bisam bii mooy suñu réaction yi xol bu sedd ak mbég ak ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wax ne wax dëgg yàlla murid yi ñépp ñi ngi fi mbooloo mi fi nekk xaju fi ñëpp ñi ngi jëm fan tuuba kon nekk am yëg-yëg bi ñu am mooy sant sëriñ Touba bu baax a baax a baax a baax bi ñu sëriñ bi boolee ci boppam sant sëriñ Touba bu baax ba mu ñu mayee pasté fu tam fu mu ñu mën a fekk ñu dem Touba lam dama dama mos a déglu benn waaye mu wax wax ju am solo mu ni su may dund damay dem Touba moo faatoo tañ may yóbbu mu Touba kon nag loolu ab yëg-yëg la kon nag wax dëgg yàlla li ñu yëg ñun ñëpp hmm. mooy siyaare ji sëriñ bi hmm. màggal yàlla na ko yàlla defal màggal ku sedd guy ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm am ay xéewal gudd fan gu ànd ak wér jaamu yàlla gu ñu nangu yàlla na fi yàlla yàggal a Mahamadou Mountakha ak njabootu murid yëpp ak jullit yëpp ak taalib yëpp ak sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf sëriñ Moustapha Amar ca Mbàkke jërëjëf ñu ngi fii nag tey ci Touba Malken Sarr di waajal bi nga xam ne moo lépp lu ñu am moo ñu ko jox. Hmm. muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. ñu ngi fii nag tey ci Malpensa di waaj a teewe ji bis bi incha allah taala. ànd kook waa daayira Touba Varese ak mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ci aéroport bi yëpp. waaw ndax lii rek moom moo ñu fi indi gannaaw moo ñu fi indi rek kon saa su sëriñ bi wootee rek dañuy fas ne dem. Hmm, teewe ji ko bu baax a baax. yaa ngi ci dajeeg ndimbala sëriñ bi. amiin waaw daayira Touba Varese nag ñu am pastef lañu wax dëgg yàlla. ay jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu bu baax ak mbokk taalib yi nekk ci gox bi kon ñu ngi fas yéene teewe ju bis bi daal di ñaan ñaan ñu ci dajeeg ndimbal sëriñ bi. amiin barke xasidi barke mafatihul bisri bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. bismillahi rahmaani xaala cheikh xaala cheikh Mouhamadou Samba Diarra Mbaye. maam Samba Jaara Mbay ne bi yaa raw ci penku bi yow yaa raw ci sow bi yow yaa raw ci réew yi Lamin yaa raw pa gànnaar yaay njiit ci penku bi yow yaay njiit ci sow bi yow yaay njiit ci réew yi Lamin yaay njiit fa gànnaar yaa gën ci penku bi yow yaa gën ci sowu bi yow yaa gën ci réew yi Lamin Sëriñ Bamba yaa gën fa gànnaar yaa moom ci penku bi yow yaa moom ci sowu bi yow yaa moom ci réew yi Lamin yaa moom fa gànnaar yaa moom ci penku bi yow yaa moom ci sowu bi yow yaa moom ci réew yi lamiin sëriñ Bamba yaa moom fa gànnaar maam Adamaay baayu nit yonen di baayu julit yow yaa di baayu julit fekk ko gànnaar njàccaari ñëw nañ fi yow gumbay palamtu di ñëw luubay nataal di la wuti daw ba gànnaar kiliw leen bu dëgër buur yàlla may nanu ndam lu kenn amul ñoo ko am raafaale gannaar mam samba jaara mbay kiliw leen bu dëgër buur bi yàlla may na nu lu kenn amul ñoo ko am raafaale gannaar mam samba jaara mbay lu di mu xaddam laa di woo ku dib alxaaji maala woo boole ki cheikh ku ma ci woo na ne la bayka mbaanaam di leen yëgal kii ma fi gis te kii ma gis ku ko fi gis te àndul ak moom ku ko gis gënu fi mbaa saful xorom na ngeen ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis nangeen ngeen ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis dat leen di ànd ak ki ma gis bu kenn ne déggu maw turam cheikhu siyooki ahmada cheikhu siyooki ahmada kii tettal ahmada te di fi kañ muhammada ah, ba mu dugal ko biir këram tampet ko tampetu ngërëmam ni ko yoxoo si biir xolam digal ko waa ci ndigalam fal ko ci kaw fal ko ci kaw lalu palam cheikh muntaha ni mu mel